minutes ñu tëj. doon nga may kii noonu aussi. en deux euh, minutes temps bi jeex na. on a fait plus que temps bi nga xam moom lañ ñu joxoon. mais booba mayul pour ma wax mais ni mais. ah en deux minutes ñu bàyyi la nga dama indi fii comme ça là aussi. en deux minutes oustaz nag xoolal ñu dañ lay bàyyi nga wax. cinq minutes ñu lay déglu non non non man mayu leen ma ma wax dara aussi. Ah, en réalité bon moom même ma ñëw man damay ànd tuuti euh, ak. Euh, Kajoor Kajoor ci man suma profession. je suis un technicien de laboratoire d'analyse médicale. xëy na fii may ma ma may ma ma ñëw. loolu moo tax ah gis nga moo tax damay ànd ak moom que ni gis quand un problème il faut diagnostiquer d'abord moom loolu lay wax il faut retourner à la source gis nga jàmm boo ko bëggee foog nga maandu maandu boo ko bëggee foog nga teg dëgg dëgg boo ko bëggee foog nga delloo ko ci yàlla ndaxte yàlla mooy mooy dëgg ci lislaam dañu ne jàngal yàlla mooy xaq xaq mooy dëgg moo tax lu boo ko delloowulee yàlla rek doo am dëgg. te dëgg nag yàlla jàngale na ko ci téere téere yëpp ñoo bokk ñoo bokk lu ñu jàngale euh, man li may wax ci xele yi mooy xele yi amuñu repère amuñu ku leen ku leen orienté. mais looy proposé lan ngay proposé. li may proposé pour xele yi mooy première chose bi may njëkk a proposé Jean-Jacques Rousseau. était un démocrate non mais mais bàyyi ma ñëw mais ni ngay ni ngay kenn du waxtaane noonu aussi kenn du waxtaane noonu aussi. du du li nga bëgg laa lay waxal. non non non non non non non non non. non non du du li nga bëgg laa lay waxal aussi du kenn du waxtaane noonu aussi quoi en réalité yow li may wax xëy na mën na des ci yow mais may ma muñal ma ma expliqué ko nga xam li ma bëgg a wax. Jean-Jacques Rousseau non non non non Jean-Jacques Rousseau dafa nii société bu yàqoo boo ko bëggee defar boo ko bëggee defar ni ngay def booy da ngay changer njiit ba njiit ba ngay changer njiit ba boo ko changé ci ngay doog a changé njiitu Sénégal dama lay waatal na la Sénégal suñu pro suñu politiciens yi ñu ngi leen di sikk di leen nàngam man damay ne ñoom ñu ngi ci yoon ndax ndaxte ñoom ah ñàkk pexe moo tax ñu jël lii mais moomuñu ko loolu comme que nag moomuñu ko moo tax ñu nekk repère ndaxte gis nga nit ki leen di jiite foog mu teg leen ci diine diine mooy mën a tax nit ki baax xale yi nag mën leen mën leen leen a xañ diine ba noppi ngeen bëgg ñu am diine parce que mooy comportement parfait léegi non euh, kii dama ko bëggoon poser benn question ah, non pas gis nga gis nga may ma ma ñëw léegi pour pour ma pour ma conclure foofu te ñu aussi ci li wax que ni que naa même même une minute rek même une minute rek bon gis nga foofu li may wax mooy gis nga Seydina Omar Abdul Khattab xam na mooy cosaanu démocratie parce que bi nga xam te moom tubaab yi jël dafa wax ni law na anaaqan zahabat ila shaati il iraq la tuliba bihi omar mu ne benn bëy bu dee woon fële kii ci tefesu iraq moom il était à Médina mu ne bu dee woon fële mën nañ lañ koy enquête le président il est responsable de tout ce merci qui se passe beaucoup ah, mais bu fekkee ne bu fekkee ne dafa jël ñun Sénégal dañuy xëccoo pouvoir on a trente candidatures yooyu yëpp benn légal la ci puisque ñoom il ne respecte pas la laïcité puisque ñun xamuñu lan mooy laïcité